gars yi what you do what you good it's your new West gars maa leen di naan salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum di leen naan dale nag jàmm sama chaîne YouTube you know comme ni ma koy faral di waxee naan God bless senegal gars yi naan God bless America rek man maa ne God bless Sénégal rek yéen ma gën a nëw gars yi comme ni ma ko waxee tey ñëw fan at benn reaction vidéo reaction vidéo boo xam ne Nix moo ko génnee Nix moo génne benn vidéo bu tudd La Boca mu def si feat ak Omzo La Boca benn euh, extrait la boo xam ni dafa boole bokk si album bi nar a génn bu tudd EMW2 maanaam excuse wolof tout ramsey clip boobu la ñuy ñëw tey xam nga jéem a xool luñ si luñ si mën a génnee bu fekkee jàll ñu décortiquer ñu décortiquer bu jàll ñu décortiquer clip bi waxal na boppam yéen a ma gën a naw kon léegi-léegi gars après générique bi loolu wees pa pa pa pa ok gaa yi comme ni ma ko waxoon sànq yéen a gën a naw dañuy ñëw tey at clip euh, la bokk ñu déguster ko xool la la saf wala bokk ay ci ñu dem seen a thug. Prove it, prove it, rek ba kenn dootul amati lu muy woo. I bug out, I bug out, I bug out, I bug out. Keep spend my money, sinon I la knock out. I bug out, I bug out, I bug out, I bug out. Pasamos pendo, ligena, el lengo, es la vida loca. Plata o plomo, no otro diploma. attendez Flamand. que bu mu duggee si clip bi dégg ngeen ko yéen non Nigg sax du flow baay. daanaka seetloo ne sax comme xaw nañu niroo flow nii benn instant nii gars yi niroo flow de ni ñu ñu wooyee nii gars xam nga posé xam nga wax bi ñëw yaa ma gën a daal mais sama waa mu duggee rëy na Niggas, you hoop, bigger than Taro Poto. Lave the loco, my shop work homo. I want on lotto, chip your bend on loco. I want you static, but I am the coco. Maybe I'm not an young, mad on a new fee, my convox a choco. Maybe boy, my lake and young, the restaurant, she is Sandra a loco. Boy, my dark, I dance on Waka. I call a serre, Captain de la Taka. Timon, London, Taka, Mangi Taka, boy, Yang is here, and then you get a pattern. Découpé, découpé, MC, boy, Omzo, Tamni, Ubi, Dibi, Terricha, et MC par kilo, Marines, and Jicos. gaa yi ne dañuy ubbi débiteri jaay si ay MC par kilo mariner seeni jiko Nice punchline, next day. Send Manager et Iceland en île, le Island d'un parcours en île, en côte pendant mille ans, avec ça, un million de pilons, et ni l'un ni le Buenos Aires, sa boca, si l'on est anesthésié comme la coca. Yeah. This is my killer fuck every day. Même ma farou rap pour épicé, rapper yang et Jimmy Child, sauf qu'on a besoin de d'un bail à part mes épiciers. Les guignons, les bails, voir le négocie. Ni mes rôles, dis ma lac à la négocie. Non, ma lac français, bail, bordel, les guignons, voilà, plus confisqué. Game, il a le sens de terre, il voit ma lucie, c'est ma young. sa guma guma daal maa ngi moytu sama bopp booba léegi ñëw nañ dem na ñaa ngi jëne fi nga toog prouvé prouvé rek ba kenn dootul amati lu muy wax ta booga la booga ta booga la booga gis fay ma mari si noona la nooka ta booga la booga ta booga la booga pasa mo pendo li kena el lengo es la vida loca ta booga eh yeah mieze Uh, capitano manda Raoul, yeah comme ni ma ne woon sànq gars yi de euh, je sais pas si ñoom ñaar duñ bokk euh, bokk nañu genre flow quoi ni ñuy genre ni ñuy rappé boo xam nga rap modernisé boo pas trop wolofal yaa ma gën a nëw euh, bokk nañ genre jàpp bi ñu yor daal boo seetloo ni ñuy woyee quoi te clip bi dafa am benn genre son bu may fàttali quoi nag moo gën a rythmé mais. genre euh, benn son Nicki Minaj la ak Lil Herb bu tudd Chirac boo xoolee ñaari son yooyu euh, ñaari son yi xaw na niroo quoi seulement que bi moo ëpp ay tama yi ñu si boolee xam nga Afrique bi dañ ko africanisé euh, mais xaw na niroo quoi parce que foofu Lil Herb ak Nicki Minaj même flow lañ ñëwee woy woy ba mu jeex te dafa dóob yaa mu gën a naw affaire mu naay

yenn rappeur noonu sans pour autant dellu si tey mu ñëwaat naan euh, euh, rappeur Galsen seen fête mooy le 8 mars gars ñu ñëw xam nañ le 8 mars lan moo si xew du ma si yegg yéen a ma gën a nëw. Ah, xel nga nekk borom bopp samay duus doo ko gis si horoscope torox nopp feccu def ba Europe loof jëlal wax ma ani góor ak loof door man ak jonkum dor ak woof war ak doox léegi xet na jolof trop rab gal seen a ëpp caas ngor yoo fils wax ma lu tax sa grand-mère ma grand-mère n'est pas qu'une grand-mère waa si presse samay soor nga gëmee nee na ñoom julli rek lañ ma xamee maa ngi téléphone a sama avocat gel bu ànd ak sama butéelu coca si timi ñëpp mën a coaché la roxaanu juddu gang motherfucker game yi laa def sans intérêt wax ma lu si sama yoon sika sika gisu guma guma jaaral maa ngi moytu sama bopp booba léegi ñëw nañ gën a ñaa ngi rek ba kenn dootul amati lu muy woo. a boga la boga a boga la boga this my money si noona la noka a boga la boga a boga la boga pasamos pendo ligena el lengo es la vida loca. yeah a boga la boga. You know what I'm saying. Oh, no. Yeah, guy. Yeah. Yeah, niggas. Yeah, tey damay jàkkaarloo ak yéen quoi. <sighs> merci waay merci rappeur Sénégal yi merci ñëpp nag merci vraiment waaw ñu ngi avancé quoi sincèrement parler instant yii nii bu ñu nekkoon un sur cent laa la de bu ñu nekkoon un ñu ngi si quatre-vingt des na nag. vingt pour cent yooyu noonu day metti pour ñu pour ñu pour ñu yegg si ay quatre vingt dix quatre vingt quinze mais ñu ngi siy jublu ça veut dire que ni rap galsen mu ngi dem lan laa mën a wax si vidéo bi bon euh, vidéo bi si biir vidéo clip bi am na description ñi nga xam ni vidéo bi li tax doo gis ngeen ni à la fin vidéo bi si nañu wone kan moo defar clip bi mooy les entrepreneurs Euh, mais du ñoom rek ñoo wax dañ si ay collaboration collaboration nag du ñeneen ñi ñoo yor seen que ni watch the drone film ñëpp xam nañ ko bokk na si si moo moo moo kii effet lumière yi si en euh, gis nañ tam production artistique yi nga xam ni ñoom ñooy waa euh, attendez ñoom ñooy waa ñoom ñooy waa African Victory ñoom la ñuy wax ñoom ñooy ñoom ñooy production exécutive bi direction artistique bi tam euh, gars yi ñoo ko def euh, entrepreneur comme ni ma koy waxee kon ça veut dire que ni liggéey bi euh, liggéey d'équipe la moo tax résultat bi gis ngeen ko fi vidéo bi nii mosagul am Sénégal c'est la première fois mu am Sénégal sincèrement parler qualité artistique qualité production c'est la première fois am parce que du benn loxoo ko yor kon ça veut dire que ni tamit comme film yi rek da gis film américain yu bëri gars yi ñuy def ay collaboration pour mën a génne benn affaire que ni instant yi ku nekk day jéem woon am maanaam seetaan benn interview boo xam ni euh, réalisateur idole bi wax wax affaire bu important mooy maanaam fii ku nekk day foog moo war a jiite moo moo a jiite moom euh, loolu da loolu solidarité boobu moo war a am si hip hop Galsen sànq amul gars yi gars yi par exemple euh, Omzo Beats war na mën a produire képp kuy rappeur Sénégal xam nga IS 814 biir war na produire képp kuy rappeur Sénégal ñu bañ nekk di yaa a nëw daal di bañ a nekk di ku nekk di far fii di far fee loolu mentalité boobu faaw ñu changer si rap Galsen war na firndeel. vidéo bii li comme ni ma waxee amagul Sénégal c'est la première fois mu am liggéey bu rafet la topp deuxième chose mooy gis nañ ki defar base bi bit bi ki ko defar mooy kan Flagrant Délit la ak Pass Beats Passa Beats ñooñu ñoo defoon euh, son yar dernier clip Omzo bi euh, ñoom ñoo ko defar te gars yi euh, gis naa ni seen seen son yi xaw na wuteeg yeneen yeneen yeneen bit yi quoi néanmoins que bit Sénégal instant bit maker Sénégal yëpp a xarañ ñëpp. barke Serigne Touba ñëpp a xarañ ñëpp gars yi ñu ngi génnee ay son yu dóob ay son yu dóob lañ nekk di génnee leneen lu ma mën a wax mooy euh, damay def benn clin d'œil nix affaire bu mu def dafa nice euh, nekk koo xam ne si old school bi nga jógee ñëw xam nga collaborer ak euh, new generation bi d'une façon que boo xam ne day dafa dafa dafa dafa dafa jéggi level bi maanaam dafa gën a yokk doole new generation bi. xam nga sans pour autant rester si old school wala genre yu noonu te ñëpp xam nañu Knicks bon professionnel la dafa mel ni instant yi nii euh, monsieur buy jàng buy tette élève quoi yaa ma gën a nëw c'est pas parce que moo leen dàq rab mais moo leen ëpp expérience rab bi kon action mu nga def rëy na. j'espère que tamit dina ko def yeneen rappeur pas seulement avec Omzo Dollar dina jéem a xool yeneen booy nu mu mën a def ba génnee affaire nice parce que loolu mooy rab bi quoi gars yi nii comme ni nga waxee Omzo a def fit instant di war na mën a def fit ak moo néanmoins am na ay jab yu si bëri mais instant yi gars dañ ko war a dépasser indi ay thèmes yu bees indi yeneen beneen vision boo xam ni képp koo xam ni day get rapport euh, Galsen bu mu am ay affaire de séparation quoi game bi tamit du tee mu continuer mais aussi nañ ko def si liggéey bu rafet quoi fair play maa yaa am nga doon dañuy jàkkaante mais buñ dajee si mbedd mi beneen sens la kenn doo dégg mbëri di xuloo yu bëri nii. loolu la loolu laa mënoon pour expliquer clip bi nice na boo leen demee si description clip bi boo leen ko seetaanee di ngeen gis suuf lépp loo xam ni soxla ngeen ko si la bokka la tudd la bokka mooy gémmiñ la bokka mooy la bouche pour muy leer yéen ma gën a non boo leen xoolee clip bi si bokka bi la accentué bu baax pour wane bokka bokka ñëpp xam nañ gémmiñ lu muy def day dugal day génnee gémmiñ mooy tux gémmiñ mooy wax gémmiñ mooy tufli gémmiñ mooy saaga gémmiñ mooy lépp kon euh, am na benn rôle bu important boo xam ni Euh, am na si vie wu nit ki quoi yéen a ma gën a nëw kon gars yi la vidéo touche à sa fin comme ni ma leen koy waxee chaque jour pouce bleu pouce bleu pouce bleu euh, commenter leen vidéo bi matuma je suis très nul comme gars yi ni ñu koy waxee yokk leen ma doole yokk leen ma doole yokk leen ma xalaat critiquer leen ma j'accepte j'accepte dinaa la tontu nag man ku ma critiquer naa la tontu d'une manière respectueuse mais naa la tontu waaw parce que su ma la tontuwul mel ni damay favoriser ñi nga xam ni ñoom ñoo wax lu neex non. man damay tontu ñëpp képp ku ma wax dara ma tontu la si li ma wax quoi yaa ma gën a ndaw mais commenté leen commenté leen commenté leen bu ma yeggee 1000 inscrits yeggu ma fa sincèrement parler bu ma fa yeggee dinaa commencé wane sama inscrits yi te comme ni mu ko waxee balaa décembre bëgg naa 10 000 inscrits kon sama gars yi abonnez-vous ah gars yi merci beaucoup Lor Wes la woon ak yéen pa pa